ñaareelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi ay at yu bare gannaaw loolu yawut yi di sët ibrahima yi bare lool ci misira beneen na falu di ku ragaloon yawut yi noonu mu def leen jaam di leen liggéeyloo liggéey bu metti loolu matal li yàlla waxoon ibrahima bi mu ko nee ay sëtam dinañu doon jaam ci meneen réew lu tolloog ñeenti téeméeri at benn bés firaw na santaane ñu sànni liiru yawut yu góor yépp ci dex gi te jamono jooju la musaa juddu yaayam dugal ko ci ab pañe teg pañe ba ca dex ga doomu firaw na bu jigéen gis liir ba mu jël ko yar ko ni doom ju mu jur ca kër Firawna bi Musa amee ñeent fukki at benn bés mu dem fa yawut ya dëkk mu fekk leen ñu sëf leen liggéey bu metti noonu mu gis kenn ci waa Misra muy dóor ab yawut Musa rey waa Misra ba daldi suul néew ba waaye yawut yi sax ànduñu woon ak moom ci li mu def bëgguñu woon musa doon seen njiit musa ragal ne na dina yëg li mu def noonu mu daw dem dëkk ca màndiŋ ma ñeent fukki at léegi ma laaj leen juróom benn lu tax yàlla bëgg a jële waa Israël ci njaam bi ñu nekkee ci misra ndaxte yàlla gis na seen metit te dégg na seeni jooy yàlla bëgg na leen te façon na yéene won leen cofeelam ak yërmandeem te yàlla digoon na Ibrahima ne dina am askan wu yaa te musalkat bi dina bokk ci askan woowu juróom naka la musaa muccee bi aw na santaane ñu sànni liir yu góor yépp ci dex gi yaayam dafa ko def ci am pañe teg ko ci wetu dex gi doomu na bu jigéen gis liir bi yóbbu ko ci kër aw na yar ko fa juróom ñett ndax musa waroon na rey waa misira ba lu tax déedéet rey nit bàkkaar la